maa ngi ne ak naka lañ koy waxee. waaw macha da koo jàpp ndax Sane maa daa jël combat kon lii ko yàggoon a xaar nag macha allah waaye lu jot yomb. kon yaa ngi Sane Maajo day jël ndax macha da koo jàpp waaye nag lu jot yomb yow dundal loo dund doyul. am problème ñoo far ok mais yow moom. Mm. ko fasee rek. boo ko <laughs> ngi ne ak naka lañ koy waxee. waaw macha da koo jàpp ndax Sane maa ngi daa jël combat ko kon lii dañ ko yàggoon a xaar nag macha waaye nag lu jot yomb. kon yàgg ndax Sane maa ngi day jël jar waaye nag lu jot yomb yow dundal loo dund doy. am problème ñoo far ok mais yow moom. bu ko fasee rek. boo ko fasee dinaa mer am problème am problème ñoo far.